Euh, tu étais un élément clé du mhm. Sénégal 7. Waouh, hmm. doonoon naa ko. qu'est-ce qui s'est passé Le mot tax ñu xëy xëy euh, sur les antennes de Sénégal 7 le pourquoi aujourd'hui Madiaw a quitté la télé lan mot tax <coughs> exactement. Euh, donc mën naa ko tuddé wërsëg bu jeex comme ni ngeen koy baña déggé wa hmm. ndax nit fo nek ba sa wërsëg jeex fa mom jeex na tak mën ni weer bi may bayyi bi ma bi ma jot sama salaire madam ndjay bima ma fay dafa ni ma weer wi di ñëw dama lay yokkal billahi alazim mais ci wo la ta weer wo rek après sentir na ni fallu <laughs> <laughs> xam nga du lepp lañu nu mën wax du mën lepp lañu nu mën wax.

Euh, tey ji seen mission yi nga xam nekk moo di Réveille-toi di ki nga xam nekk moo di euh, Madiaw Néné alors saison 2 bi nag numéro 2 moom mbégte kontaan di dalal bu baax a baax Madiaw ah l'animateur des animateurs <laughs> présentateur des présentateurs bàyyi nga daal di nuyu téléspectateurs yi. di nuyu di nuyu mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu ci. monde bi ak fii ci Sénégal. Mm. ñi baaxul di seetaan Sénégal 5 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jaajëfal ci ànd gi nga xamante ne saa su ne ñu ngi koy ànd ak yow euh, sa émission bu am solo bi nga xamante ne moom mooy def émission bi nag seexluwul kenn ah. mm. émission bi kenn ku ne mën a ñëw toog fii wax li nga xamante ni moom la dund comme ni koy mm. defee mm. Euh, donc Madiaw Fall Ndéné Madiaw Fall Ndéné xam nga dama dégg nga wax Ndéné xam naa sax ci biir mën nga ma waaw Ndéné bi bu la neexee nga saytu ko quoi ah. mais Madiaw Fall la donc maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy teewlu ci fépp koo xamante ne nit ma nga fa di seetaan Sénégal 5 ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. Hmm. Hmm. suñ si doolee ñaar. Hmm. muy Sénégal 7. Ah, euh, nga nekkoon fa justement nekkoon fa animateur nga liggéey lu am solo si li nga xam ne moo di si espace médiatique bi ni si daal ñëw si ñu gën a yaatoo mais tout d' abord. kan mooy Madiaw exactement. waaw Madiaw de xam naa ni. <clears throat> di mom day jafé trop mu wax bopam hmm. mais jaw la goné goné goné bu jugoo jugee jugee Saint-Louis. Saint-Louis gone ndar bo xamanteni ndar la fekk bax fa la juddo fa la jàngee euh, laata mi ñëw Ndakaaru euh, bokk ci famille bu nu naan hmm. euh waye tamit aussi ñu koy pratiquer nanen ko no noo xamante du ñu noo xamé géwal di ko pratiquer ay mbiram. du manière très noble. waaw waaw hmm. manière très noble ndax fima ma ci géwal gi ma bokk ñoom duñu tëgg duñu fecc duñu way duñu wayaat ñoom liggéey rek lañu xam ak jàng hmm. waaw donc boobu géwal laa waaw mais ci askan boobu laa bokk ndax bu bàyyi di géwal yaay di géwal maam di géwal kenn mënu teeba doo doon géwal waaw jànge nag ndar euh, ci jàng buy nasaraan muy alxuraan yëpp laa ko jànge laata nga xamante ni euh, maa ngi ñëw ndar maa ngi ñëw Dakaaru hmm. di ak taalube hmm. di ab taalube bëgg Serigne Touba tamit loolu. waaw doon cantaakoon jébbalu ci sëñ Béthio bi ma amee 13 ans. Hmm. waaw kooku mooy Madiaw. alors Madiaw sànq wax na ko exactement nii ndar nga jàngee. Hmm. Euh, fan la toll si jàng bi euh, Madiaw jàng wala alxuraan hmm. jàng. naa ñaar ñëpp. ndax ku xam ndar xam ni ñoom dañu bëgg seen doom di jàng. ndar dafa bëgg doomam di jàng. Hmm. jàng da leen jaral lu ne euh, ci ndar laay gisee xale boo tolloo ci jàng di ko def su fekkee defoo ko. Hmm. ñoom pare nañu pour rey la. parents yi. ñeneen ñi dul parents yi tamit nekk ci dëkk bi. bu ñu hmm. xamee ni xale bi dafa bañ jàng. ñoom ñëpp dañu lay dóor parce que dañuy bëgg nga jàng. loolu la ñu gëm quoi. muy ci wàllu nasaraan muy ci wàllu alxuraan yëpp yàlla dimbali nañu jàng nañ ci liñ ci war a xam nu xam ko ci waaw. nasaraan si.

wala ko xamni ni était calme euh, xale Madiaw lan la la parce que ñun moom franchement ñun bu gis moy madjaw bu ambiance ah Madiaw bi flalé fépp dal alors sa xalé sa xalé naka la démé exactement. waaw pourtant nag am na ñoo xamante ne nee bi dama lay jóg. da nga la jóg man nak jàpp naa ko màggaale. waaw waaw nee bima bi xalé non non pourtant nak ni ñu bari mm. nee légui sama calme danañ jaxal parce que melu ma ni sama mm, enfance. Mm. waaw ñu bari nee man dama lay jóg ba paré bari affaire. bari ay dugg-dugg ñu bari dañuy bu ma gisee ci écran bi danaan ma da waane xamoon na ne lii du lu ci yow da nga waane woon bi nga nekkee xale. loolu nag xëy na du ko sentir quoi dama jàpp ni xëy ñii dañ may tooñ rek mais jàpp naa boobu mooy majaw bi donc dama xaw a discret tuuti ba pare nag bugguma lu lu fees de trop lu fees tamit même siiw bugguma ko. Hmm. man ma nit ko siiw sax daf may jaaxal. maa ngi yaa ngi ci branche bi. waaw waaw ñemewu ma nit ñemewu ma nit de trop gis nga mën naa nekk nii ci écran bi wax. Euh, suma baye xel ni ay nit yu bari ni ngi may seetaan daf may déranger waaw duma nit ko xamanteni ni dama bëgg même mbooloo mënuma ci taxaw té micro wax waaw ni xaru nit bobu la ñëwé ma nit de trop quoi bëgguma tamit buma xamone ni koñ bi bu fi jaaré ñu bëré baye ma xel duma fa jaar. mais comment ça ça fait euh, malgré ngi dunu lolu ba paré nga bëgg def la télé. wa xam nga amna ci lo xamanteni ni dafa nekk ci man parce que tamit aussi boudé amna ci lo communication. nit mën na ko mën na nekk ci moom te doo ko jàng et puis nit mën na mën na ko def hmm. donc la télé man xam mën naa ko mën naa ko def même bu fekkee formation bi nga xam te def nga ko euh, ñi nga ko defal dañ lay wax ni yow lii mën nga ko def donc bokkut ak euh, def nekk la télé bokkut ak aussi euh, ngay fës ci mbedd mi wala ñu lay gis ci ay mbooloo bu hmm. bari yooyu hmm. c'est clair ñu bari duñu ko duñu ko kii quoi alors sànq tout à l'heure yaa ngi ko doon wax ni sa enfance danga xawoon lëj

donc milieu yooyu nga xamante ne fréquenté naa ko ci moom ci lu yàggul moo ma dimbali communication ma xaw ko mën tuuti ndax lu ci bari daan nga toog cinq personnes wala dix personnes toog ngay wax seen kanam et booy wax di xool dangay wax et communication moom da koy da koy def ci yow. ndax moom communication bu baax la yor. ci wàllu mbiru yàlla wala tamit ci wàllu euh, actualité ci wàllu loo xam xamante ni société da koy soxla. Hmm. da ciy wax ak yow te wax bi mu koy waxee ak yow di ak bi di wax ju bare yar ak teggin donc loolu boo ci jëmmee jàng ci da lay dimbali nga mën a def communication. wala nga mën a wax nit di la dégg. donc loolu lépp ci keppaaru Cheikh Béthio Thioune. laa ko jàngee. nga ko jëlee laa ko jëlee. passion la woon si yow kon. wa mën na am sax mën na am waaye xam naa ne lu ma bett la ndax nit moo ma xool ba mu yàgg rek koo xam te ni mës ko def ni ma majaw yow lii mën nga ko def donc kooku moom mettre en rapport ak euh, euh, Dakar TV. Hmm. Dakar TV Dakar TV nga njëkk a jaar Dakar TV laa. c'était en quelle année. Hmm, xam naa ni yàggul ah 2019 2019 Dakar 2018 euh, ba 2019 donc Dakar TV ak Sénégal 7 benn la ndax ñoo bokk ki leen moom.

dañuy am ni yéene ma joindre leen Sénégal 7. Hmm. ndeysaan maa ngi ciy nuyu Penda Badji journaliste la Sénégal 7. waaw ñu njëkk monsieur Mboup bi ma ko njëkkee présenté dafa ne monsieur Mboup kii dafa boo doo ko indi Sénégal set xam nga duma ko fàtte mukk Penda maa ngi koy nuyu au passage waaw moo bokk na ci njëkk réclamé ni naa ñëw Sénégal 7. Hmm. donc tegaat naa ci ay weer.

muy man di yow ñu ñëpp nekk li nga xam ne que moo dans la euh, vulnérabilité. Mm. Boral et instant bi lépp luñ dugg rek duñ ko daal di accuser est-ce que des fois itam euh, doo am regret par rapport aujourd'hui ak mon médiatique bi. waaw loolu du ci ñàkk ndax euh, fi mu toll nii ñu bëri daw nañu jëm ci et puis site internet yi bare na kenn ku ne da nga koy gis mu téye micro léeg-léeg nga toog di télé gis kenn téye micro may wa faral di wax ñi ma toogal kii micro bi ni mu ko téyee sax neexuma donc question yi muy laajte du question yoo xamante ne question yu yu yu nit ku def formation di laaj donc ki nga invité pour mu nekk en l'aise sax il faut nga koy relancer question yoo xamante ne dina nekk pour tontu ko da ngay xam ni ñi ko def ñu ci bare jàngunu ko et puis dañu jékki-jékki rek di ci wut xaalis donc mu doon loo xamante ni yenn saa tamit nga dégg gars yi di di sëpp seen kaw di leen wax lu ne te mu la leer ni rek ñenn ñi ci rax moo koy waral euh, et puis mu nekk milieu bu metti milieu boo xam te ne dafa metti yenn saa yi da ngay dem ci ay reportage euh, dëkk nit micro yenn saa yi am na ci gars yoo xam te ne insulté am na ñoo xamante ni dañu lay lay dañu lay dañu lay tontu tontu boo xam xamante ni tontu bu bu bu ñaaw la mais boo doonul koo xamante ni rek teey nga dal nga euh, doo ci mën génn waaw léeg-léeg ñëw nit ni la bu ma filmer nit ni la ma laaj nit sànni la loxo xam nga yooyu yëpp da nga koy dund ci ci mm. ci ci bi ci terrain bi waaw ci terrain bi waaw lu ci mel na ay euh, am na ay décès yu fi am yoo xamante ne ay nit yu célèbre lañu yu siiw Euh, yenn gars yi bu ñu fa demee da ngay gis euh, bu ñu après gars yi retour bi mooy euh, réseaux sociaux yi rek ngay dégg. Hmm. site internet yi da ngay dégg. journaliste yi da ngay dégg. franchement waaw mu mel ne ñu nekk rek xam ne dañ ciy doxee noo xamante ne du doxin bu bu rafet. Hmm. moo tax yenn saa yi di nga ci am ay ay ay regret tuuti quoi ak yenn yi nga xamante ñi nga xamante ni yenn saa yi ay xam nga nit ñi fu ñu dajee du ñàkk yenn saa yi siisante xeexante. Hmm, nit mën loo mënul doo ko yéene xam nga yooyu day am ci ci ci milieu bi quoi yenn saa yi da ngay dem ba dañ ci dund loo xamante ne day metti da nga naan. dinañ si ñëw dinañ si ñëw ma xam ma jaw mm-hmm. euh, euh, dund ko alors sa euh, première émission yaa ngi koy fàttaliku. waaw maa ngi koy fàttaliku. parce que c'était en direct ou bien c'était préenregistré. waaw ah, doon ko enregistré. parce que lan nga yëgoon exactement lan moo nekkoon say premières sensations. waaw jour boobu dama dama dama dalal ak benn borom xam-xam. Mm-hmm. boo xamante ni euh, ki nga xamante ni moo ma doon moo ma doon moo moo préparer woon émission bi dafa ne ma pour ma càmbar la pour jël la euh, nga tàmbale nu liggéey il faut nga won ma dara quoi donc yaay xool ku la neex nga invité ko euh, nga def émission ma seetaan la donc jamono yooyu mu ngi ci régie bi moom ak gaa yëpp di ma seetaan ma invité ku naan Serigne Saliou Samb. Serigne Saliou Samb waxtaankat la boo xamante ni ko xam moom ak Boubacar Konaté nekkoon am seen TV fii may wax ak yow bu ma juumul am na site internet bu siiw bu nu nekk di ci di ci liggéey. ku bari xam-xam. Hmm. ma doon def benn concept émission bu tudd Al Hilmu. Al Hilmu da doon euh, maanaam jotaayu xam-xam la mais day dox ci vérité absolue vérité relative spirituelle ak temporaire donc moom laa invité woon euh, bi ñuy briefing ma nag moom maa ngi naan ko na nga ma gunge ndax xam naa ne yàgg nga toog.

donc jour boobu noonu bi caméra yi tàkkee ba gars yi may ma départ vraiment yëgoon naa lu garaaw a garaaw ndax dama mm. xam ne fi mu toll nii rek ndimbalu yàlla rek laa fiy xaar waaye du fit du du xam-xam. Mm. affaire yi noonu de manière naturelle. nga ah, réussir sa première émission. Mm. waaw parce que euh, euh, euh li ma doon def du ma ko mën ndax waxtaankat bi ma invité murid la te waxtaan nañu ci mbiru yàlla. ndax juróom bi ñu ngi waxtaan première fois ak xatu Muhammadu Rasulullah lan mooy dëgg-dëgg yonent bi. ma dëgg-dëgg yonante bi sax ñi ko xam barewul waaw wala boog bu dee xam-xam bi xóot na lool lool foo nga yàlla waaw ndax la yonent bi kenn xamu ko hmm. waaye moom da ci gëstu gëstu gu mag tey bu fekkee ay murid lañu te jàng mbindu Serigne tubaa hmm. Serigne Touba am na ci ay xasida yu bare yoo xam bind na ci dinu décrire hmm. yonent bi donc ci loolu laa sukkandiku waxtaan ceeg moom juróom ñu ngi jëloon ci benn xasida bu tudd Muxaddimaatul Amdaax moom doon waxtaanee nga xamante ni 2010 wattu naa xasida googu mm. ci laa ci laa doon waxtaan ak moom di ko relancer ci xasida gi moom it ci biir xasida gi la doon waxtaane mm. donc ci biir xasida gi mu doon waxtaanee léeg-léeg mu dugg foo xamante ni dama koy damay maîtriser bayit bi mu nekk damay jaaraat ci bayit bi relancé ko mu daal di dem donc loolu moo tax après moom mu yëg émission bi waaw xam naa ak lu yàlla rek jàpp ci mm. ba nu tenir benn une <laughs> de temps après dadi dadi dadi ki quoi bi nu paree nee ma du tay nga def émission yow. Hmm. mané ne ko bilaay. lan moo nekkoon réaction DG bi pour la pour euh, la première fois. Hmm. lan moo nekkoon sa réaction. waaw waaw waaw waaw après ñom dañu ma encouragé wax ma ni ma nii la émission bi moom mën nga tenir di ko def bu la neexee chaque quinzaine wala chaque dix jours. bu hmm. koy def yaay seet ku la neex nga invité. donc invité naa fa ñen ñu bare Boubacar Konaté invité naa ko Serigne Fallou ak euh, ñu bare ak ay. mais tax sa animation nga bëgg ko centralisé cas cadre religieuse exactement. non il y a dama am religieux. man suis un lu je man damay hmm, polyvalent actualité damay def people damay wàcc sur le terrain damay reporter man temps, dama fay dem fa Sénégal de dama ma def de trois jours de bu di six heures du matin reporter de la dugub bi damay def de damay sur le terrain de da ngay sur le terrain te dara du dindi li may wax li may wax kenn du ko dindi journaliste yi daan nekk sur le terrain bu ma daan wax dañ ma daan tiimale micro. barke seen Touba waaw loolu moom yàlla dimbale ne ma lépp laay def. alors bu ma demoon suba suba làmb wala dimanche làmb am bu ma demoon ci làmb bi bu ma la jàppalee mbër mi. Hmm. da ngay jàpp ni mbër rek laa xam loolu moom lépp laa mën. alors euh, donc euh, Madiaw tu étais un élément clé. bu Sénégal 7. waaw hmm. doonoon naa ko. doonoon naa ko doonoon qu'est-ce qui s'est passé la moo tax ñu xëy xëy rek gisatuñu Madiaw euh, sur les antennes de Sénégal 7 le pourquoi aujourd'hui Madiaw a quitté la télé lan moo tax nga exactement. <coughs> waaw xam nga euh, donc mën naa ko tuddee bu jeex comme ni ngeen koy baña déggé déggee. Hmm. waaw ndax nit fo nek ba sa wërsek jeex fa mom jeex na tak mën naa ni weer bi may bayyi bi ma bi ma mujjee jot sama salaire madame Ndiaye mi ma fay dafa ni ma weer wi di ñëw dama lay yokkal billahi azim mais ci weer woowu laata weer woowu rek après sentir naa ni si dama fi arrêté. dama tax waa parce que nekkuma woon en les bu baax. lu tax am na lu ma empêché woon. dama la empêché woon tamit aussi <laughs> xam nga du lépp la nu mën wax. du mën lépp la mën wax. Euh, madame madame pare pour yokkal sa salaire. Mm-hmm. waaw mais eh, eh, xam nga man nit eh, malgré cela nga dem nit laa koo xamante ni dama am gëm-gëm te bëgguma ku ma yeb mën nga ma mën nga ma tane mais bëgguma nga yeb ma te bëgguma daal nga may nga may nga may nga may nga may poussé ci loo xamante ni man du sama kii parce que nit laa koo xamante ni lépp lu may lekk bëgg naa lekk ko ci diñ ci dignité ci loolu laay dox man kenn du ma yeb ci man dërëm ak million laa yemale dama reg hmm. noonu laa tënju waa xëy na am na lu ma fa déranger loo xamante ne neexuma am na am na am na am na am na am na loo xamante ne dama dem ba xam ne dama hmm. da nekkuma à l'aise pour liggéey am na lu ma empêché donc li ma empêché du ma mën a di véhiculer seen ay tur ak yooyu ci ci ci ci site bi mais am na loo xamante ne parce que tamit aussi nit fa muy liggéey ñoo ko mën jàppale jàppale bi mooy euh, di ko gunge ci ay ci lépp mais bu fekkente ne nit xëy na dafa am lu muy def yow nga ciy gise ni nit kii li muy def wala émission bi mu kale am na ci xaalis bu dul jeex wala da ko togg ba mu ñor moom ak waa ji wala am na yooyu bu ci am rek confiance day jeex bu confiance jeexee après nit ki dootoo ko wóolooti li mu xol bi mu mën am pour liggéey wala boog nekk bi mu war a nekk en l'aise pour liggéey joxe boppam du ko mën ok bu yàggee sa day réservé boppam loolu moom fa commencé woon kii ci koo xamante ni xëy na moo yore woon programme yi donc bi ma xamee ne mënuñu mënuñu mënuñu dem après ci laa ci la ci la arrêté xoole la ren <coughs> donc euh, danga nga dem ba sentiratoo sa bopp si liggéey bi. Hmm. waaw parce que ñu ngi teg sa kaw loo xam ni amaana ni jàpp na ni laale woo si. Hmm. du ma ne sax ñi ngi teg sama kaw loo xam ne parce que boo nee ñi ngi teg sa kaw day mel ne dafa am ñu bari ñu teg sama kaw Sénégal set ñëpp samay waay lañu ay nit yu baax a fa ne. ku ci hmm. mel ne madame Ndiaye. je parle le directeur des programmes Euh, ku bax la euh, may na ma xaliss ba tay element euh, yëpp dañ daan toog bon bi ni ka war ma majaw xoolal loolu élément yi tok ci suuf bureau mi ci kaw mo bon bi ni ka war ma ma jaw suma ñëwee ni ko madam mu ni ma dama wéet dama wéetoon ni rek mo bëggon tok ñu waxtan barké Serigne Touba Pam jaay may na ma xaliss ba tay may na ma xaliss jour bi may njëkk may fukki jënni luma ma la hmm. waaw yëkëti ko may mako ci am rek lu xew moy ma 50000 waxtan nga sék avant ngay dem waaw madame Ndiaye sax xëy na man bu ma xasee non Pam Ngagne euh, waxtaanoon ci mais bi mu ko yëgee bett na ko et puis. Euh, mais sa démission naka la demee da xëy xëy benn sa lettre de démission. waaw euh, madame Ndiaye daf ma envoyé message di ma laaj lan moo tax xëyoo ñaari fan yi et puis ma wax ko ni ko dama jël décision arrêté laaj na ma lu tax ma ne ko dafa am benn formation boo bëgg a donc xëy na gëmu ko sax ni ma ma loolu mënul nekk ñëwul sama bureau demee wane ma mais man maa demul. respecté parce que jàppoon naa ni man noonu laa mel ma xasee ba jël benn décision rek jël naa décision bi waaw du ma jàppantu bu ma jàppee jàpp mu ma bàyyee bàyyi naa noonu laa mel donc ba léegi samay waay la noonu madame Ndiaye dañuy déggante yenn saa ma dugal esthétique mu liir ko sama daf ma def comme frère am dafa naa ma yow da ngay da ngay da ngay rester toujours doon sama frère donc euh, Sénégal. mais Madiaw est-ce que essayé nga si waxtaan ak euh, say responsable madame Ndiaye et tant d'autres parce que nous nous bëggoon nous na resté est-ce que jëloo cette décision à la hâte. waaw xam nga bu fekkonte ne woon xëy na man li tax ma démission li soogee sama démission euh, ba jàpp naa ne lu mën a wu la moom mën am waxtaan mais dem ba ne parce que nit tamit bu fekkente tu es majeur et puis euh, di seetlu di am yu bari yooyu bàyyi xel. Hmm. di nga di nga di nga mën def sa analyse donc xam lii lu lay avancé loo wala lii li nga bëgg sa feuille de route bi nga teg pour jaar si ndax lii euh, dina doon ci loo xamante ni dina la may nga dem ci nga bëgg yegg donc dem naa ba xam ni lii suma ko continuer tamit du dem quoi dem naa ba xam ne du dem. Hmm. donc loolu donc à un moment donné dem na ba xam ne te mënatoo exceller Sénégal 7. waaw lool loolu loolu dem naa ba xam ne mënatu mënatuma li ma bëgg lii liggéey. dafay la concurrence. Hmm. non non. ak seen yéen moroom présentateur amu fa parce que man ña fay liggéey ña hmm. fay liggéey ña fay liggéey hmm. eh, maa ngi nuyu Wally au passage Wally journaliste daf may wax ma jaw la nga daan def Sénégal set ba léegi gisuma ku la fa mën la nga fa doon def ba léegi gisuma ku la ci tane te loolu man xam naa ko yenn émission yi nga xamante ni ay nit yu am yu ay responsable la nuy kale madame Ndiaye danañ choisir man ma def ko dafa daan wax directeur programme bi loolu ma jaw ma ci doy barke Serigne Touba donc man xam naa sama bopp xam naa li nga xamante ni ma quoi man buma ma demee damay def li ma yónni ak xam laa koy jox ak na ma bañ fan ma yebal dañuy mujj remi am retour ci ni ki ngeen fi yónni defe na ko nii defe na ko nii. bari na ñoo xamante dañ daan wax léeg sax commercial yi ñu daan def man mi lu ñu daan taamu ma koy def. Hmm. commercial. lu hmm. jëm ci wàllu sëriñ wala dara koku bu demee buñ ko bu buma ma ben benn reportage kooku wootee bëgg def commercial ni yebal fa kanen dafa nan euh, lu tax ma ñëw ñew daf may mujj woo téléphone su ko defee mané ko man tay dama gën mais est ce que ma Madiaw demul ba sentir xaw a sentir boppam touti <laughs> Sénégal set. <laughs> non non <laughs> non du sentir sa bop parce que li nga wax bi yépp franchement. Mm. euh tu détenais la télé en fait. wa man non son bop sentir ma son bop parce que tamit nit la ko xam te du ma man duma bew parce que xam naa sama bopp te xam naa fan xam naa fi ma jógee. Hmm. donc te bewu moom nit ko xam du ko def. Hmm. waaw dama jàpp ne rek ni li ne ci man dafa ne ci man li ne ci fallu ne ci moom li ne ci sunu caméraman bi nekk ci caméraman bi. Hmm. caméraman bi am na lu ko keneen tane am na lu mu tane keneen. fallu mën na présenter ñëpp gis ko. mu neex ñëpp bég. Madiaw mën na wax ñëpp gis ko mu neex ñëpp bëgg yàlla du may dafa am ku ne lu ma lay mm. may. Mm. donc jàpp naa ne am na lu keneen mën. Mm. man ma mën lii bi may ñëw rek léegi maa ngi romb Mbissane grand journaliste boo xamante ni euh, politique yëpp moo koy def. bi may ñëw léegi gis naa ko mais bu la téeweelee micro rek nga kontaan euh, donc ku ne ak la la yàlla may kon xam nga beewu mënu ma fa nekk di beewu waaw mais daal la ma fa war a def def naa ko te jàng naa fa lu bare Sénégal set ci la bi jeex na. wala wala kon fa xaaraat ma jaw hmm. mission bi jeex na wala kon mën fa xaaraat ma jaw mu set hmm. ñaanal man <laughs> ma jaw mi ci ay projet donc am site internet am bu tudd Kéemaan TV hmm. di fa yebal gars dañ fa dem abonné dama fay lu yàlla di def ba xam ne def mais fi toll nii maa ngi ak samay projet yu am solo ngi ci def est-ce que euh, peut-on attendre espace médiatique bi waaye juguma ci de maa ngi ci maa ngi ci damay génn sur le terrain. ba donc aujourd'hui directeur télé mu ngeen débouché à tout moment Madiaw. waaw ma ku ma woo de ku ma woo bëgg nu liggéey de dañuy liggéey ma bu xaalis bi tegoo ci table bi waaw boo ma fayee dañu liggéey waaw fay moom liggéey ba nga kontaan. Hmm. waaw te lu ma la defal nga gisu waaw sa site bu ma fekkoon abonné nangam dama koy yéegi bu la mel doon vue

dans la présentation wala ko mu xaar yenn perspective si Madiaw exactement. Wa bare na am ci yu bare yo xamante ma ngi koy étudier. diko ko mm. Mm. euh projet yi dal bare na te lu jëm ci audiovisuel am ci ambition. da mm. japp nañ ni inshallah ken momoko, wa ko ah kenn ku ne la nga ci am da nga liggéey rek ba yegg fa am ci yaakaar ni dinañ ci sore inshallah bu baax pourquoi pas waxuma sax télé yu magi mais pourquoi pas France 24 hein? Ah, fépp mën nek donc ñu ngi ci di liggéey. Mm. projet yi pare na. ñu ñaan yàlla liñ ci bëgg rek yàlla yeggale nu fa. waaw ah, donc ay proposition yu bare ñu ngi koy gis. mais mar naan du taxa tax a naan petit. donc ñu ni woo. bare na proposition yi bëri na ah, proposition yi. télé yi ñu ngi jaabante. waaw non du ma ne ñu ngi jaaxal mais les moom ñoo la na ma gis. gisaa si écran bi. léeg ma toog mu joxe sama micro léeg-léeg ma toog mu joxe sama micro kenn envoyé ma message ne ma diw moo a joxoon sa numéro. Hmm. dama bëggoon ku ma defal lii ku ma defal lii ku ma defal lii. mais est-ce que nekkul ma jaw tamit dafa élever baat bi tuuti. élevé wu ma de non baar bi du élevé sax. parce que salaire bi aussi. non salaire su ma nee élevé baar bi. Hmm. salaire yi ma jaw tamit ñu lay dafa bëri. waaw <laughs> <laughs> non laaj ma <laughs> déggoon neen yaa ngi cinq cent et quelques mille. fële <laughs> Sénégal amiin ma ko fay ba liggéey. waaw mais tamit aussi nit bu fekkee yaa ngi daj. ku ne suñu métier bi ku ne xam dafa métti. dafa métti yenn saa yi yenn saa yi yóbbu la foo mm. xamante ni problème mu. dina mën nga toog journée ba guddi doo xiif doo lekk. waaw ndox yenn saa yi boo ko hmm. jëndee. surtout procès audience yi waaw waaw hmm. audience yi toute la journée yenn saa yi nu yóbbu la xam nga lacrymogène yi dal sa hmm. kaw ah yenn saa yi xeer yi beaucoup de risque waaw dafa bëri risque donc nit ku ci dugg rek war nga di ko waaj bu baax a baax et puis la la nga xamante ne moo la ca dugal mu jariñ la waaw ba buñ la dóoree lacrymogène boo demee sax am meew mu baax moo naan xam nga yooyu tamit dafa am solo quoi xam nga c'est clair en tout cas mu nekk lu am solo bu baax a baax a baax Madiaw nee ne euh, ñu lay remercier Euh, euh, de leur aussi bonne chance pour la suite. Mm. Franchement, euh, vous êtes pétri de talent et que talent baa ngi fi lépp ngi fi. Mm. di la jaajëfal bu baax beaucoup mm. aujourd'hui avec les internautes de Sénégal 5 TV on peut durer quelque chose sur toi exactement. j'aime sa djar ak sa parcours avec sa carrière merci beaucoup nous les remercier beaucoup ak la l'ensemble de nos téléspectateurs. Mm. jërëjëf Fallou bég naa bu baax ci sa jotaay bu am solo bi nga mm. xamante ne wax dëgg yàlla lii concept bu am solo la et dina permettre nit ki tamit xamaat boppam xam fi mu jugee ndax résumé bii nga résumé ci sa parcours lu mu ndaw ndaw dina la permettre nga xamaat fi ngay teg sa tànk xamit tamit fi nga jógee yaa ngi loolu nit ki xel mu dellu soit ci boppam donc lu am solo la. maa ngi lay remercier bu baax nit ku xale bu yaru nga quoi ko ku jox nit cër koo xamante ne wax dëgg yàlla tamit talent mi ngi ci yow hmm. yenn saa damay toon sëñ laat nan ko sa boo génnee ci écran ma ne ko sëñ laat xoolal si journaliste bi fàllu day ree ba sonn quoi hmm. donc ngay nit ku baax di la ñaanal tamit aussi fii fii nga li nga bëgg ci hmm. Sénégal 5 nga am ko di ñaanal tamit aussi caméraman bu yaru bi tamit am solo sa Singapour bi quoi di ko ñaanal <laughs> mbokk yi tamit aussi di leen jaajëfal yéen ñi doon topp Sénégal 5 bu baax a baax alors merci beaucoup Madiaw ñu koy remercier bu